waaw waaw waaw s'il te plaît c'est pour aller vite. bi mu lolo, loolu. ñooñu ñoo ñëw. nekkaat ci ay loxoom nekk ay nit yu normal nit ci nit la tàmbalee ku jël doomam andil leen ko ne leen dimbali leen ma ci solution la boo xam ne dafa juddoo ci ay problème ponctuel ñuy jël kenn di jël ñaar di jël ñett muy normal c'est pas l'initiative du cheikh lui-même hein, muy normal di normal mais nag des fois mu anormal kooka dem ci àll bi def dégâts. daw si ñu làq ko mu dugg fa police ñëw fa wala gendarmerie def fa descente mooy descente yi ngay wax rek mais au départ du woon initiative bu sëriñ bi c'est spontané léegi nag lan la ci état war a def. ak ban droit nga baal ma leeragul sa bopp ndax normal na centre de redressement ci état ndax légal na. waay à peu près loolu la laaj. non non der li ma lay wax. moom li ma lay wax man man leerul sama bopp. ndax legal na. waaw centre de redressement. ci mais mais mais daara yee ci àll ba sax. amuñu këyit daayira sax yow wuy ma daayira sax mënoo ko amal këyit ci Sénégal gi daayira kepp mooy lii lii ñu ñàkk bàyyi xel lislaam tout le mouridisme et informel Le statut du Khalif général des Mourites n'a aucun privilège formel dans ce pays-là. Non, il n'en a, pas besoin. Voilà. Non, il, non, non, non, on, non, non, non, il n'en a pas besoin ou pas, c'est pas le débat. Le, débat, c'est qu'il faut Allez, comprendre que le, mouridisme est une organisation informelle. Nekul ne ñun dañu wut dem wut ay keuyit pour wax ne li ak li ak li. donc lépp lu ñuy def yalla rek moy tax ñu di ko def te ci jaami yalla lañ ko mëna a ci kaw volontariat nit ñi ñoo bëgg ñooy joxe seen bopp ñooy demander ndimbal kilifa yi waaye kilifa yi laajuñu kenn Pape Djibril waaw d'abord d'abord euh, pour pour pour vraiment revenir après c'est la pub waaw pour vraiment revenir sur le mm-hmm. vif